ñuy waxtaanee mooy démb dialogue national bi nga xamante ne euh, président woote na ko euh, ca CICAD di centre international de conférence Abdou Diouf dajale woon euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci làngu politique ci société civile yi itam këru diine yi daanaka ko ci nekk amoon nga fa daana daanaka représentant waaye donte ne am na ñu bari ci nga xam ne ñoo ngi ci ku jigi itam dañoo gàntaloon woote woo nga xam ne président woote woon na ko ca ca ndaje ma la ñu jot a tukkee ci ay ji moom la ñuy daal di euh, jàngat ci waxtaan wi ñuy xaarandi consensus maanaam juboo euh, te loolu nag mooy tax ba président mën a jàpp date ci élection yi daanaka euh, loolu la waxoon waaye démb tamit gën naa fi daal taxawaayam ne dafa bëgg a jóge ci réew mi ñaari fan ci waa ci weeru avril te loolu nag ñi nekk ci ko jóge jamono ji ñoo ko ko mën a may déggoo am ci waxtaan wi nga xam ne moom la ñu war a amal suñ ko deful moom dana jël ay pexem ba def li mu li mu war a li mu war a def loolu man jàngat nañ ki mën a jëlee wala mi nga xamante ne gis ngeen euh, moom président moom lay bëgg woote ndax mën na am ci ndaje moo xamante ne ku ci nekk rek daanaka euh, sa bëgg-bëgg moom nga dara jiital salaamaaleykum. maaleykum salaam. naka journée bi. est-ce que dooma bàyyi yokk kàddu gi wala su nekkee da nga takk écouteur wala airport nga tekki ko. waaw salaamaaleykum. oui. waaw tur maa def. waaw ñu ngi sant yàlla baax di kontaan di président euh, yaay le futur maire de Ngaye Mekhe. waaw amin waay ma bi nekk maa ko fal nag bi mm-hmm. <laughs> bu baax lay delloo bu baax a baax a baax. mais wax dëgg yàlla Macky Sall gàcce ngaalaam. Mm-hmm. gërëm boo xoolee li may waxoon démb. Mm. moom moom lañ moom lañ moom la Macky Sall ñëw teg ko. boo mhm. lan nga ñëpp dem li ma doon wax démb ma démb émission bu ngeen defoon démb. Mhm. la moo tax la Macky Sall def kon moo ne Macky Sall kon mi ngi dégg Sénégal yi ba pare mi ngi dégg seen site bi kon Macky gàcce ngaalaam mais loolu nii nan lay doxal. Mhm. nee naa Macky Sall du jël élection di ko joxe ci gaal nit ñi. waaw ah, yooyu kenn ko fooy man li ma wax rek yow gis nga coow la nekk bët bët bët déedéet mais Macky Sall ak Ousmane Sonko réeróowul deux mille vingt et un wuli maa leen koy wax ñu naan boobu dafa dafa dafa bañ Ousmane Sonko dafa def nangam dafa def nangam mais Ousmane Sonko dama ko yéene mu dem ci woto boo dem mu dem su taabal cuuraay comme ni gaa ngeen cuuraay mais ñoom ñi ñëpp naa ko def Ousmane mi ngi tëdd seen jabar ñu leen taal cuuraay defal lu ne ñu naan léegi léegi ne nekk ci jàmm tim suñu njaboot Ousmane Sonko la dëdd fële mais ñi ay ay ñi ay booy wax dama yaar baat baat ma ay doomalaam dëgg la parce que toujours dama doon def war na baax waroo di xalaat loolu Mm-hmm. mais Macky Sall li mu woote nii mais képp ku nekk Pastef war nga fee kontaan. Mm-hmm. pour Ousmane Sonko libre mais li ma nekkoon gëm ñoom Ousmane Sonko ñi ànd ak Diomaye Faye leen Diomaye Faye leen gëm. Mm-hmm. ñi ànd ak Ousmane Sonko gëm Ousmane Sonko mais jëloon bi képp ku xam ne nit la nga am na xel comme ne Sénégal waroon nga faa dem mais ñi demoon ni mooy Sénégalais yi tax ñu wax ñoom ñoo yor Sénégal tamit parce que boo xoolee yenn kàddaa yi moom dañ leen a yaakaar ñu dem mais xaw ñoom mosu ñoo kay mën ñoo am benn pour cent xanaa duñ jëriñ lu mhm. doon moo fa dem mooy Amadou Ba. te bu période man laa am mu jël deuxième. te moo tax ñi xam bokkuñu kay. jëm moo la xam ne du am dara. Mhm. maa ngi naan un appel ma pour Macky Sall mu déggaat ma. na may na na na na woote baal bu maam Sonko mu dem këram. ñu koy taal suraay di ko defal ceeb neex. mu ut njabootam. xam ne politiciens yi jëriñ ko. Sénégal yu bëri jëriñ ko. comme Sénégal di doxee ñoom dañoo yaakaar ne ñoom tëdd kaso ñëw naan ay on on on on on la combat comment. Macky Sall wax démb dañ na ko jërëjëf Macky Sall. Mhm. mais lu war la ku ñëw yaa xam. Mhm. ku ñëwul yaa a le meilleur président tous les Africains. moom ay xoxtal de. te Macky Sall di nga li mu wax leer na ko def dégg. Mhm. maa ngi xool kan moo ci man dara parce que mooy président tous les te am na Sénégal amul dara duñ wax lu ma cinquante deux personnes wax. Mhm. wala cent personnes wax nga xool seen wax bi dafay aaraat da ngeen di kii moo am mooy mhm. wax dëgg. kon ñooñu soo xam ne kon ñooñu xam ne duñ wax chrétien ñu soo wax dëgg kon. fi mu ne nañ wax ne ci sa diine muy chrétien jullit ñëpp benn lan ndax ñëpp yàlla moo ñu ko wàcce. Mhm. kon tey boo diine ak chrétien bi tey moo am li mel ni chrétien bu daawul wax dëgg loolu daa am lu ñu dul nañ bàyyi nit ñi dox yi affaire yi affaire dox yi nan nit ki da ngay am xel wala nga yeew wala nu yar na fan la war a yare parce que ñun ñëpp yàlla la ñun yàlla ñu ko wàcce kon ñëpp benn la tey bu xewle man ñun ñoo xewle bu ñee xew man ñoom ñoo xewle nan bàyyi seen idée yi ñuy génn seen waxi dof yi waxi dof yi moo gisee ku baa miir wala ku ndam miirul mooy kenn jox yenn wax yi ci waxu ay affaire affaire di affaire chrétien yi loolu waxi dof la yooyu ni tawul koo génn génn na boo nekkee nit wala nga jàng tuuti wala nga yem tuuti rek nit woo tax génn yooyu xalaat lan lan jëlee teg ko fële ñun dañuy wax produit di wax Sénégal nan la war a doxee ëllëg ñun loolu la ñuy xeex mais duñ fekk ay jamaay tey yi nga xam tekkuñu dara jànguñu dara dégguñu français dégguñu dara xamuñu ni gérer Sénégal ñu leen jox Macky Sall dugg ba leen jox réew mi loxo yi sax bi soo joxee réew mi fu ñu jëm mais dërëm xam nga tey démb réew dama nga xam maa ngi leen suivre démb mhm. mais xam nga seen liggéey bi gis ngeen Macky Sall lu wax dafa firi ñu leen pour laas ba dara mhm. xanaa loolu war naa kaay ngeen waxtaan. Mhm. ñu xool ñi nga bokk ñu jëndi leen. mais ngeen ñëw ñëw ak kee waa jamaay fay. Mhm. Ousmane Sonko la si kese ba. la jamaay di nekk di nekk président. ñi ñooy baadool dëkk. ñii du ñuy gor. barke Rasulaay booy xool baadool dafa di politicien dëkk. parce que ay nit yu tekku dara. da ngay gis ay nit yoo xam dañuy dugg dañu lay mënaat gis naa benn waaye bu duggoon. mais naa ab imaam la. maa ngi ñu jiite benn xoolaat te am ku ci dee sawar na jëm. Mhm. parce que mun maa gis ne yow gën a ay yu ma tëj daan nii mooy dëgg même pas trois heures de temps quatre heures nga ji ay wax yëpp ñëw fenn fenn rëy daan ni àndaan na ba dégg ma àndaan ma nii. ma ñu ban yow lañ nekk jërëjëf nag gars yow taale réew mi. d'accord réew mi xam dëgg la moom mu coow li coow li coow li Macky Sall c'est le maire amul kenn ko nit di wax. Mhm. ay wax yu Mm-hmm. Macky Sall ne leen ceeb réew mi du béy du ceeb dong ak gerte dugub. Mm-hmm. dafa am gaz am lépp am jamaa am or am lu ne ak yenn xew li war a ñëw am mm-hmm. phosphate. lépp mu am ko ñii xamuñu ko léegi dañuy jox réew mi ñu xam ba léegi rek nekk gerte bi. ñoom xaaral ñu pare ñoo xamuñu lu la téye nañ ko. am ñoo xam ne doon na leen mari. mooy ñu ñu jàpp xamuñu la leen fa téye ñoo ne leen jëriñ dinañ ko jox ñoo xam ne leen fi ne mari ak dañ leen fi ne seen dëkk yi su la ayoo Macky Sall dafa doon. Mm-hmm. dina liggéey ba di ko bàyyi ay loxo yu salté maa ngi koy laaj am na seulement mba mba ko dee ma mën a ko doy pour yéen gars yi mën a dugg. nga xam ni réew moom lañ ko jox. article trente six bu bàyyi dem baal ñu ko na toog weer ba trente et un ba le quinze décembre mu àtte waat affaire yi ay jomaay kay yi ak yenn femmes yi nga gis ñu ay benn leader yi xam du am ëpp daal lu génn leen ñu def élection mu nekk trois personnes. ñu jël Ousmane Sonko Amadou Ba ak doomu Abdoulaye Wade bëggee bokk ñoom ñëpp ñu dem ñu dem élection ñeen ñu def ñaari néew parce que amuñ benn xam-xam ba war nañu mën a jiite seen kër bay jiite Sénégal. d'accord Diallo merci xam nañ leen jàllale. Mhm. loolu dañ ko fooye réew mi dañ ko fooye ñu ngi wax Macky Sall merci beaucoup mille fois beaucoup Macky Sall na ko gars yi partagé daam seen kii bi ñëpp moom la ñuy seetaan yéen a nekk à top na ngeen xam loolu na ngeen xam Macky Sall yéen lay seetaan. Mhm. parce que li ma ko wax wax yëpp fii laa ko waxee te noonu la koy def ko mhm. kon gàcce garaa Macky Sall ñii saaga na kilifa diine kilifa aada yi dañoo xamul rek dañoo réer xam nga ku daan lekk sombi di naan fonde boo ko yor benn cent franc nga beneen àdd boo taxaw nga boo téye daan mhm. nan bàyyi kilifa bi te ñu respecté Sénégalais yi te ñu respecté seen bopp respecté seen mbokk parce que ñëw nekk ci àll bi da nga ñëw Sénégal comme li nga di wax waaye nekk bi ni nga ñëwoo ngaan di mbap mbap nekk ba di rafetlu di seetlu yow yow dara dëkk. yéen ci lamp ñëw leen Sénégal di mbap mbap ñëw ni président nangam nangam. d' accord parce que président c'est le président tous les Sénégalais. d' accord merci après lan après li nga xam ne noor bi mais nañ génn gars yi di jàpp gars yi di leen nax. Mhm. parce que ñun góor ñoom duuma rek moo baax ñoom. Mhm. parce que seetaan bu bëri gisal suñu mbokk Gambie yi ñu wër ñu wër dëkk yu bëri am na ñu xam tey du ñu xëy teg te ñu ngi dugg di yàq di di di yàq suñu réew mi loolu dañ ko war a xeex ne di ci def liggéey booy bu def lu ci war def na nekk prison. d' accord merci kon moo merci ma dox dikk na de. fii mhm. mhm. mhm. merci merci merci di la nuyu di nuyu euh, waa Ngaye Mekhe gépp gi nga xamante ne euh, foofu ngay wootee di xaar keneen ci waxtaan wi 77 la 810 90 90 77 810 90 90 di tënk euh, bien sûr démb ouverture dialogue national bi nga xamante ne président de la république woote woon na ko ca centre international de conférence Abdou Diouf doon dalal foofu ñi nga xam ne ay acteurs politiques lañ bokk ci société civile bi waaye itam ñi nga xamante ne ñoo ngi ci patronat privé yi ay itam ñi nga xam ne ñoo nekk ci euh, euh, këru diine yi waxtaanee euh, tolluwaay réew mi waaye itam élection présidentielle yi nga xam ne namm nañ koo amal fii ak ñaari fan ci weeru avril te nga xam ne président démb bëggoon nañu waxtaan wala door sax waxtaan yi ngir mënu amu dat ngir yoy le élection ñu mën koo daal di jàpp na mu gën a gaawee salaamaaleykum